baax na am nga maa lay nuyu. maa ngi lay fay sama doom. tur bi nan la. mooy Modou Mbingane Mbingane production. ay Modou. tey nga ñëw ci drapeau bi nga xamante ne dañ koo parrainé maire de commune de Djilas ban yëg-yëg bi ma ci am muy mbégte rek ak baneex ndax ki nga xam ne mooy El Hadj maire commune de Djilas. dafa liggéey loo xam ne bu ñu amee commune be léegi kenn liggéeyu ko fa mu nekk koo xam ne aussi ku baax et li nga xam ne Doudou Niane ñëw na ba tuddee ko drapeau bi bëgg naa ci ñu mu njëkk a woo Doudou it nekk koo xam ne ñu rakk la suñu doom la et eh, kon nag su demee ba tuddee El Hadj Ndour drapeau mbég-mbég rek laa ci am et eh, te itam ñu koy sant ñu ko gërëm. maire bi it nekk koo xam ne sama doomu bàjje sama doomu nijaay la kon donc nekku fi mais dama mel ni man ma mu ngi fi parce que ñu ngi ñu fi ànd ak ay mbukam ànd ak ay rakam ay magam ak ñoom Issa Thiam ak ñoom Abdou Ndong ak ñoom Thierno Ndong ak waa village yëpp parce que itam lamb bi daa mel ni comme village la ñu nekk rek waaw village it su xewlee du ci man du ci sulay képp ku xewal rek waa Jilaat yëpp nii def loolu daal pour daal ma gàttal wax bi kontaan naa lool foog koo xalaat sama kontaan te pas de fois waaw. jërëjëf ñu ngi lay jaaj jërëjëf itam maa ngi leen jaabal papa maa lay nuyu. Ah. maa lay nuyu. maa ngi lay fay. tey nga ñëw ci bis bi ñu yónni leen dara jàll leen ci bis bi la ban yëg-yëg ngeen waaw dañu kontaan parce que monsieur le maire suñu doomu nijaay la. sumu doom yi daay la moo tax ñu ñëw fii ñëw ci làmb bi pour joxe drapeau bi ci jàmm ak salaam kontaan nañu torop kontaan nañu torop ñu koy ñaanal aussi lu mu fu mu bugg a yegg na ko fa yàlla yeggal waaw ñu kontaan nañu torop daal. Doudou wane na doomu Jilaas la waaye lépp lu mu am ci mbaax Jilaas la koy yóbbu tey yëg-yëg ban ngeen am ci. man danaa la wax sax Doudou suñu doom la dafa bugg dafa bugg bàyyi. doo sor ku baayam duudu moom vraiment maa ngi koy ñaanal daal fu mu bugg a yàlla na waaye yàlla ko yàlla yóbbu waaw kontaan nañu trop ci duudu aussi parce que suñu doom la ñu ñoo ko jur bu ñu gisee rek day kontaan ñun aussi moom vraiment maa ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax. fàttali ma tur bi. man Issa Issa Thiam. gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey ngeen ñëw ci bis bi. Diarra Dial ko maire de la commune de Djilass. ban yëg-yëg ngeen am. ah ban oh, bu mag mbégte bu mag oh, parce que dañu kontaan ci liggéey bi nga xam ne moom la maire liggéey ci commune de Djilass ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko doon dox ba yàlla indi ko ci mu nekk ci commune bi amuñ ci luñ ci rëccu parce que lépp lu mu liggéey foofu ñun gis nañ ko ak waa commune de Djilass yëpp ñu kontaan ci lu mu liggéey moo tax fépp foo xam ne maire woote na foofu il faut ñu dem fekkee ji loolu mooy loolu mooy li nga xam ne moom la ci li ma kontaan ci ba ci ci liggéeyu bu mairie bi te na wax ne ci département Fatick tey boo xoolee maire yi fa nekk yëpp amul benn maire bu mën a bu gën a liggéey maire bu Djilass waaw loolu daal xam naa ko te kontaan naa ci loolu. loolu rek laa amoon ci li ma ci wax ñu ngi ñaanal maire nag yàlla eh, joxaat ko beneen mandat. pour fi mu bëgg a yóbbu Djilass mu yóbbu ko foofu ci barke yonent bi kon tay képp kuy doomu Djilass soxol sedd soxol sedd na guy ci liggéey bi nga xam ne képp koo xam ne dëkk nga ci commune Djilass soxol sedd na guy ci liggéey bi amul benn commune boo amul benn euh, dëkk boo xam ne tey yëgul ci li maire li liggéey ci liggéey bi amul dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Djilass yëpp ku ci nekk gis nga ci sa bopp ci liggéeyu maire ci loolu li ma la ko mën a waxee waaw xale yi nañ làmb ju neex Dame Sène Libidor Oninga ngoog Oninga waaw waaw xale la bàyyi leen ko ci làmb doomu parcelle la parcelle mbooloo ne moom Oninga Libidor Dame Sène làmb ju neex Dame Sène jël na ko bañ ndeysaan Libidor Dame Sène Libidor Dame Sène Libidor Dame Sène Libidor Dame Sène ba tey na nga noonu ña ngay leewaato Libidor <laughs> jàngal Libidor Dame Sène lamb ji neex na hey Doudou li nga tëgg tey xamoo ko fekkee ma yu daaw ya fekkee ma yu daaw jéeg ba waaye ñetteelu édition bi drapeau Mbaye ak Loum <laughs> ndeysaan maire de la commune de Djilas oh! combat baa noonu da ko bëgg a god village Dame Sène war na ko ndomba Dame Sène war ndomba li mu door bu Ngunjaan Dame Sène lu nar Dame Sène mbot nañ ko li daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy waaw li nañ mbokk yi li mu door moo leen féete noonu Libidor bii mooy premier combat am ci tournoi bi bi compétition bi commencé ba tey bi mooy combat bu njëkk ndaysaan keroog fekk na ma terrain gaal gi mu ñëw ñu ne ko daa fees tey mu ñëwaat daw nañ jël Libidor dool na ko tànk ndaysaan Libidor mbër la boo xamante ne daa bëgg bëre moom Libidor ndeysaan Libidor bu Kayaar la écurie Grand Yoff mbooloo la nekkoon beru na dem na Kayaar wéyale na ko xale bi bañ ndeysaan Libidor jàpp na ngemb Libidor am na ko Libidor am na ko ndeysaan arbitre attel ndeysaan Libidor ngeen jàkkaarlool sëñ Bas Libidor a ngi noonu arbitre bi nee na ndeysaan Papa Sow tay la doon def assemblée générale Libidor jël na ko na tànk ba lu nar yëkkati na bañ na ma nga suñu kaw dóor na ko ci suuf wër na ko ndomba nar sëñ Bas mu ngi sama wet Libidor a nga sama wet daan na ko wala déet arbitre bi àtte na cey làmb waaw waaw. arbitre cey lam. na sëñ Bas. ndeysaan. na. arbitre bi attawaat na. lamb ji day neex na trop yàlla man. fay ana madam. madame Gallé waaw. Oh, ma yaakaar day ñëw non mën nga gàll bàyyi ko dafa mel ni da da ngaa bind recours léegi recours bi lan la wax. jàkkaarloo sama jamono. ah déggaguma dara de maa ngi déglu rek li ñu wax rek. waaye am nga yaakaar ni yow yaa daan. waaw maa daan premier action bi sax bi ma ko xëccee quatre appuis la def te bi ma ko dugalee tàng faisal bi daal laa suuf. recours bi lu ñu wax. ah déggaguma dara damay xaar ñu wax rek lu ñu wax rek loolu laa jàpp. kon baax na sant yàlla moom. daa mel ni compétition bee ngi dem ngay gën neex. maa ngi gën neex la moom maa ngi sant bu baax mais su ma ko jëloon rek ngay comprendre lépp laa lay jox dem sama yoon. Ndoye na ngay tey. waaye sant bu wér. boo doon ko nag mooy booy bële booy bu njool bële. mais daf ne Siteu dafa am. mu dugal recours. Siteu am na wala amul. parce que ñëpp xam nañ daan naa ko. affaire yi warul am yéene affaire am mboq. te bu ñu doon bëree ba suba maa ko mën xam naa dafa xamul moo tax. bu ñu ba loolu amul problème garaawul. ba tey recours bi dara génnagul. ah man gis naa ko muy zibe léeg-léeg di yuuxu moo tax man maa toog moom. mais xam nga li la yoon may dem nga ci baa bi laaj. non dama ko foofu nag damay xaar ba ñu woo. sama licence. sama licence bi ngi foofu joxaguñ ma ko. kon baax na ñu déglu rek. Boy Faye Boy na ko mu bañ li mu door waaye Doudou Sané ngay yëngal cey lamb Boy Faye war na ko ndomba Boy Faye war na ko ndomba daan na ko Boy Faye daan na ko dafa am doole macha allah xale bi doole nee na dama Boy Faye nee na dama lekk Boy Faye nee na dama lekk nee na dama lekk ngi noonu ay sëñ Ba jëlal Doudou Sané combat bi. arbitre bi sifflé na Libidor Ndiaga Dollé Libidor moo leen féete càmmuñ Ndiaga Dollé moo leen féete ndijoor Ndeysaan ñu ngi fii ci journée Djilass Production tey le 2 Ndeysaan le 2 février 2020 bu ñu le 2 nga xamante ne xel day dem ci ñu bari Ndeysaan Libidor moo leen féete càmmoñ Ndiaga Dolé moo leen féete ndi joor waaye buñ ne le deux février xel day dem ci lu bari ndeysaan sama doom ja sama rakk ba sama séddoo ba muy Ndeye Mbacke Diop Serigne Passidi dama koy souhaiter joyeux anniversaire ndeysaan Ndiaga Dolé ak Libidor ñu ngi ci compétition bi ba tey Ndiaga Dolé Libidor Ndeye Mbacke dundal lu bare bare bare bare sama lakkal bi ndeysaan sama séddoo bi Ndiaga Dolé Libidor jël na ko Libidor jël na Ndiaga Dolé Libidor jël na Ndiaga Dolé Libidor jël na Ndiaga Dolé déet Ndiaga Dolé mbat na ko mu bañ Libidor Ndiaga Dolé hey Libidor Libidor fi mu ko jàpp baax na Ndiaga Dolé mbat na ko Libidor bañ na Ndiaga Dolé Libidor Libidor am na ngemb <laughs> cey lamb Libidor fa mu jàpp baax na da koo ndengeñ jàpp ko ci paqataanu ngemb la xëcc na ko Ndiaga lu mu bëgg day mbat wala déet Libidor lu mu bëgg da koy tegal 16 wala da koy arrêté ba ci kaw dóor ci suuf cey lamb Libidor njaga doole Libidor njaga doole yàgg nañ ko fu sori wër na ko ndomba Libidor njaga doole génnaat na ca njaga doole génn na ca njaga doole génn na ca njaga doole njaga doole Libidor njaga doole Libidor tegal na ko seet daan na ko Libidor ndeysaan Gaskel Jammeh ak Boy Faye ñu ngi ci demi-finale yi Gaskel Jammeh Boy Faye hey lamb Gaskel Jammeh Boy Faye Boy Faye daw na jëli ko Gaskel bañ na Gaskel Jammeh Boy Faye Gaskel Jammeh Boy Gaskel Jammeh Boy ña nga ca ba tey gaskel jàmme booy fay gaskel jàmme booy fay gaskel jàmme booy fay arbitre ñu liggéey gaskel jàmme booy fay ndeysaan booy fay daw na jël na tànk ba booy fay jël na ko gaskel tuur na ko <laughs> jàppante booy Faye forcé waat na lu mu nar gaskel jàmme booy fay eh demi-finale Adr Adrien Senghor tey du yomb Duudu moo ñu fi woo borom Jilaas production ndeysaan gaskel jàmme Boy Faye Boy Faye da gaskel jël na ko Gaskel jël na ko Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye ñu ngi ci demi-finale bi mënut a yomb Gaskel moo leen woon ginnaaw moo ngemb ngemb lu weex li Boy ngeen jàkkaar lool Gaskel Jamme Boy Faye Boy Faye jël na ko Gaskel bañ na Boy Faye lu nar wala Gaskel lu bëgg Boy Faye sol na ko si moom Boy Faye Gaskel jàmmee ndeysaan Demba Thiam borom Italie maa ngi lay siyaar di la souhaiter joyeux anniversaire nga dund 111 ans sa ordonnance ni consultation Demba doomu nday Cheikh Diouf doomu nday Angleterre neex a fekk faja ndeysaan Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye Boy Faye Gaskel jël na ko mu bañ Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Boy Faye Gaskel Boy Faye Gaskel fi mu jàpp baax na waaye Boy Faye jàppul Gaskel jàpp baax na waaye Boy Faye jàppul Gaskel jàmme Boy Faye ñu ngi ci demi-finale yi mbokk yi Djilass Production moo ñu fi woo terrain Adrien Senghor la ñu ne ndeysaan cey yàlla da ci làmb ji mbëri di la sotti saafara di romb di wis xanaa loolay ay waxkat ngeen nañ leen wis ndax ngeen wax waaye sant yàlla rek koo yaakaar jàmme ña nga ca ba booy fay gaskel jàmme booy fay gaskel jàmme Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye zongale na ko déedéet waaw waaw yegg nañ ci suuf Gaskel war na ko ndomba Boy Faye mbaa di nga ci génn Gaskel war na ko ndomba bas daanuwul wala déet ngemb tooy na Boy Faye daa mel daanu na waaw waaw Gaskel Jamme daan na Boy Faye ndeysaan ma ngay yéemu ma ngay yéemu maa lay nuyu. maa lay fay. ndeysaan gëm yàlla rek a wóor. waaw loolu moo wér. keroog dama laa gaal gi nga ñëw ñu ne la fees na bindu amatul nga gëm yàlla lelluwaat say bagage dem ñibbi tey nga ñëwaat fi finaalu loo yëg. waaw sant yàlla rek. jaam bu ne yàlla dajal na loo xam loo xamante ni nit eggewu fa war sugu jaam kenn parce que làmb foog naa ne maa ngi def sama preuve daal amul mbër lu di def te defuma ko. waaw ah, maa ngi jël ay final maa ngi finalu trophée yi nga xam ne dañu maa ngi jël kon damay sant yàlla daal xam ni maa ngi santaat bu baax a baax a baax a baax bilaay walaay bas ngel jot hey ngel bas ngel jonn ñu noonu ngel jonn ñu noonu ngel jonn ñu noonu <laughs> Kër Gaskel Jammeh ndeysaan ndeysaan troisième édition drapeau Mbayang Loum la cey yàlla lamba neex mbokk safoo wasaare lamb lamb ji neex na am na ambiance mbëri bëre nañ fulla ak fayda waykat yi way nañ ci fulla ak fayda seetaankat yi dagg nañ billet seetaan ci fulla ak fayda waaw Wassare Lamb ñëw indi bu rafet ci fulla ak fayda lépp loo gis fulla Youssou Ndour nee na sax boo koy jaay faw nga am fulla waaye Serigne Bassirou borom mbég meeg mi borom fulla la cey làmb cey làmb Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh Libidor ñoom ñaari xale yi bëre nañ bëre bu deex ndeysaan Gaskel Jammeh Libidor ndeysaan Doudou arbitre bi sifflé na Doudou lekkatul naanatul ma ngay jaabante avertissement Gaskel Jammeh avertissement Libidor Libidor Gaskel Jammeh arbitre bi waat na Gaskel moo lay woon ginnaaw Libidor ngeen jàkkaar lool Libidor noonu jël tànk ba Gaskel bañ Gaskel jàmme Libidor cey lamb Gaskel jàmme Libidor Gaskel jàmme Libidor temps ba jeex na arbitre bi ne arbitre bi sifflé waan na Gaskel Jammeh Libidor ndaysaan Gaskel moo leen lool Libidor moo leen won ginnaaw Gaskel ngàdd ko daw jàpp ko Gaskel Jammeh Libidor ñu ngi ñëwee suñu wet Libidor Gaskel jël na tànk ba lu mu nar jël na tànk ba Libidor bañ na yóbbu na ko ci nit ñi Libidor bu ñàkkee nga ñàkk làmb ji Gaskel jàmme Libidor Libidor daw na jëli ko Libidor na jëli ko Gaskel bañ na jàmme ndaysaan ci Djilass Production moo ñu fi woo ndaysaan ci njiital nga Duudu bi un million la le 2 février arène Adrien Senghor ndeysaan ñaari xale yaa nga noonu ñoo finaalu dox ci diggante gaskel jàmme ak libidoor libidoor jël na tànk gaskel gaskel bañ na jëlaat na tànk ba gaskel jëlaat na tànk ba lu mu nar libidoor bu génnee lamb ji jeex bu génnee lamb ji jeex jël na deux avertissement bu génnee lamb ji jeex gaskel loolu la xam moo tax mu bugg koo puus Libidor Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh ndeysaan Gaskel Jammeh Libidor boo génnee ñàkk làmb ja boo génnee ñàkk lamb ja génn na Gaskel éliminé na ko trois na ko Gaskel daan Yo, Zamayo, drapeau la kii tey même alkaati yee sax dañu yaakaaroon ne lamb ji na toj ma ne leen dema ci jël yëpp teg ko ci loxo yàlla yàlla moo leen ëpp doole te yàlla dina ko saafara maa ngi kontaan bu baax a baax a baax di kontaan staff staff Djilass production maa ngi leen di gërëm bu baax Jax production maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax ñëw na sama bés jàppale ma eh, eh, summi yëre am teg fale def comme ni ma ni ma ni ma ni may def ci bésam mais su ma waxee loolu sax dinaa caalit ndax maag moom siis ak noof la soow ak suukar la xooyal tuur wala xooyal naan maa ngi sant ñëpp di leen sant di leen sant yéen yéen waa site internet yi ndax gars yi dañuy woo partout partout dañuy jot ay appel te lu ko waral yéen a ko waral yóbbu ngeen lamb foo xamante ne vraiment macha allah yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla jàppale may leen wér ak wér la seen patron yi yàlla leen yàlla jàppale. amiin prochaine journée bi kañ la. rek. bientôt xaar leen ma rek bientôt. o fogole seereer. o fogole seereer naxa gidma den deno fop gidma we we teewna meeke fop ñaanana den xaalis ke da ɓisiidna meeke yaasam ta suuƴanen fo jem yaasam oxu garna meeke ɓistiid jir yaasam roog a watnin a we teewna meeke o xumnu xa andoona ande waxo daaba ke andoona ande e, ka faaxna wo ke bugoona to roog daawniranmo ten yaasam o xa bo fada mbindof roog a daawnoramo ten mais content mais kontaanana paax o kiin a waaganga xaaja xooxum ɗik da ɓis parti fa leŋ fe mi kontaanam a paax a paax a paax kontaan na teewna meeke fop monsieur le maire monsieur El Hadj Ndour kontaanam tookof a paax fo waa staff a fop we euh, membre ken commune fe Djilas tout maxey kontaanana den parce que dena fop a ngariid a njaaɓiid a soutenir idaam a soutenir a monsieur le maire gidma koy fans club Mbayang Loum fans club ke ngetna meeke tout fayam mbooj mention spéciale Faya Mbodj kontanam tokuma paax a paax a paax fa e mbugna gar to njege o daaw pour a ngariid a wena ngima fop kontanam took den ay ñoom Ndey Fatou eh, ay ñoom Khady Ngom ay ñoom e Agnès ñoom ñëpp bés bi tey ñoo ko moom xam naa ne ñëwuñu mais seen xel yëpp a ngi fi waaw kontaan naa bu baax a baax a baax kontaan kontaan naa kontaan